ليليا عجا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عجا وانزلا بالتواون asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Aynou Mady TV comme li ñu ko waxee woon ñu ngi jëm ci wàccaayu gàmmu 2000 tabaarakallahu 23 waaye ku ne gàmm sa xel dem ci burdu boo nee burdu nag sa xel dem ci burdu populaire nga xam ni sëriñ sunu sëriñ bu baax ba sëriñ Mansour borom daara yi andak rakam ju tedd ja Mawlaay Abdou Aziz Al Amin ñu tasaare ko ci àddina bi ba mu daj. khalifa sëriñ Babacar Sy Mansour ñëw woyal liggéey boobu ñaanal ko yàlla yal na yàlla guddal fanam moom ak rakam sëriñ maudou Sy ak njabootu Cheikh Sidi Hadji Malick waaye Cheikh ku ni burdu populaire sa xel dem ci mbuur ak département bi. fa tabaarakallaahu ñu koy waajal jàpp ko nag le 23 septembre 2023 fii ci stade Caroline fay tey lan ngay wax mbokk jullit yi ak waa Mbour surtout tabaarakallaahu les autorités tabaarakallaahu yi nga xam ñoo nekk ci dëkk bi ak autorité religieuses yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi pour ñu waajal bés bu tedd boobu di bésu yent bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf sëriñ Abdou Fati Niang ñu ngi nuyu mbooleem téléspectateur Aïnou Mady TV nga xam ne tabaarakallaahu li ñu def ni symbole la te du ñëk ben yoon tabarakallah yàlla nañ ko yàgg téwé teewee ala azimu laylal wilalati hisbatan idha lam yakun naxwa alxarami udulu sa maam sa serign suñu serign borom parasolu sunna bi mam Cheikh sayyid al Hadji malik invité umma islamique bi yëpp ngi ñëw magal guddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam waye buur baa ngi noonu comité d'organisation au service khalifa abou bakkar si COSCAS waye fédération yi waye tabarakallah comité bourde populaire ndigal jib nag te taalibe bu déggee ndigal bu mënee na def su mënul na jéem a cheikh seydi aboubacar mouhamadou mansour ayyadalahu llahu wa nasarahu sëriñ babacar si mansour ñi ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal faram yàlla wéral ko xalif général de tidiane bu fi yàggee l'islam yàgg am ndam waaye liggéeyu maamam bi nag mu jiwul pousse mu réer bourde populaire décentralisé muqadam yi génn taalibe yi génn dawaayir yi génn mbooloo mi génn l'islam bi génn ñu daje fii ci esar Caroline Faye le 23 incha taala septembre 2023 ñu ngi hijriya 1445 bu boobaa nag autorité yi tabarakallahu le Seigneur Mansour borom Dara ju doon wax wax nga ko le maire de Mbour Cheikh Issa Sall de ngi koy tabarakallahu le préfet département de Mbour jël na disposition commissaire Ben, bu fu ma sa nek rawatina nag suñu nga commissaire Barenya, commissaire central bu Mbour dispositif secrétaire bi daa war a doy tabarakallahu ndax commissaire yi fi jiitu yëpp noonu lañ ko daan defee waaye tabarakallahu le président du conseil départemental du doomu xadara bi sam le maire de Sindia Thierno Diagne le maire de Saly El Ousmane Gueye le maire de Malekounda directeur général bu kudd tabarakallahu le maire émergent El Hadj Maguette Sène nak nag bu ñu ko waxee Populaire bu Fat, nak, suñu premier partenaire koo xam ni yàgg ma jàpp ci général bi je bosse Omar Sy directeur général président mouvement lu jot yomb doomu Cheikhu Tidiane la ak bëgg Cheikhu Canaba waaye ak gëm wéeru gàmm alaaji Omar si di woo nag tabaarakallaahu bépp julli bi wax ashhadu laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah daayira yi nag ñooy mandat di quartier Kotar Refeñ daayira Mbuur yi fédération des daayira Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane Wade tabaarakallaahu bu ma taxawee di wax nii si Abdou Faat taxaw ñu jël ay numéros de ah muallim moo woote waaye tabaarakallaahu Baye Ibou Wade moo woote waaye mboolem daayira yi nga xam ñoo nekk ci Mbuur kon tabaarakalla fédération Mame Malick bu Mbour waaj leen Bourg du Populaire noonu seen bis la jeune Tidiane yu marché Mbour waaj leen Bourg du Populaire ngoog seen waaye mboolem dawa yi nga xam ne ñoo nekk ci seize communes yi ngànk département de Mbour fu fi nekk conseil municipal conseil rural autorité administrative ba ci collectivité yi nga xam ne ci wàllu cosaan ak aada Seydil Hadji Malick ngi woote la bis baa ngi noonu le septembre incha allah bu 16h jotee Mawlaaye Seydi Wasal daal di jib nag fii nga xam ni mooy stade Mbour Hadj Abdou Faty Niang. alxaaji Cheikh Sambu macha allah jotal nga matal nga yal na yàlla fay la yiw waaye xam naa ni tabaarakallahu ki nga xamante ni nag kenn du ko fàtte damay bàyyi yow yaa koy woowal directement ndax yëfi yëfam la ndax dans une semaine jënalu jol dajeeg 30 millions dugal ko ci jumaay Cheikh Seydi El Hadji Malick ji muy sa xarit di sa soppe di alxaaji Waly Faye ñu xam seen diggante ñaan yàlla yal na yàlla yàggal seen ànd Waly Faye di defkatu lu baax ci dëkk bi waaye tamit ki nga xam ni moo war a dalal gan ñi fa tabaarakallaahu di aja ki nga xamante ni mooy Aminata bu fondation Mame Fawade Wellé bu Mbour yaakaar naa jigéenu département bi yëpp moom moo leen di dalal ndax boo nee fondation Mame Fawade Wellé ni soxla ummul xayri binti soxna Aysiyatu si binti si al Maktoum yaakaar naa woo nga képp ku wax ashadu an laa ilaha illa allah wala woo nga képp koo xam ne rek yaa ngi ci kër Cheikh Sidi Hadji Malick ya rawatina yaa ngi ci mboolem turux yu nekk ci Sénégal yaakaar na Cheikh Ahmad Tidiane ñooñu ku leen woo woo nga àddina bi jërëjëf si faat yi wax nga dëgg Adja Aminta Niang fondation Mame Fawade Wele nga xam ne tabarakallahu nit ki bu amagul kilifa farata moy na xam bopam waye soo xasee am kilifa gu mat kilifa nak farata moy na réere bopam te xam valeur kilifa war soxna tabarakallah baji amiti ñang ku ne xam nim ciosano ci gaaya ku ne xam limu liggey ci keur maam seydil Hadji malik waye fondation mam Faaw di wax ko legi soxna Asiyatu mu Seydi Cheikh Omar kan sëtu Cheikh Omar Fouti bi tabarakallah waxtu teme ja nga ca Amérique di liggeyel seydil Hadji malik di liggeyel seen mam yu bax ci diaspora bi waye tabarakallah soxna umul khairi ñi fi teg ñuy jigéen ñoo xam ne ñu am taxawee lañ bu kër Seydou Mam seen kër Seydil Hadji Malick soxla soxna Amita Ñang taxaw bu kër Seydou Mam Seydil Hadji Malick soxla tabaarakallaahu fondation Maam Fawade Wele taxaw kon ñoom ñooy daal gan yàlla yàlla fay ñu leen ci barke ki nga xam ni Maam Fawade Wele nag moo ñu xam kan mooy Seydil Hadji Malick mi woote gàmmu gi bourse populaire ngi noonu wax nga ko Pape Waly Faye directeur général bu Jamil logistique di kenn koo xam ne tabaarakallaahu koroog ba ñu rusuñu ndax sëriñ Ahmada mii sëriñam daa toog mu jox ko chegu 11 millions rusuñu le 5 août bi ñuy laajaatal jumaa ji ca plateau bu mag ba tabarakallahu ànd ko jamaatu nur asuniya nga xam ne xalifa général di Tijaan moo joxe ndigal Pape Waly Faye jami logistique génne waat yéen 12 millions yoo xam ci sama loxo la jaar ñu teg ko ca plateau ba tabarakallahu ko rusuñu waaye nag Pape Waly sa mbokk yi sa xarit yi sa wulër yi ñi la sopp département de Mbuur ñoo leen tiitaroo caajaay jegam waaye nag nga jël société bi tudd ko taw Cheikh Seyd Aboubacar mi nga xam ne mooy borom Bonakar bi kon Pape Waly Bourd Populaire xam nga ñu xam la woon fa woon ñëwoon ngi lay xaar tabaarakallaahu di ci xaar bépp julli bi wax ashhadu la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah rendez-vous baa ngi noonu le 23 septembre à 16h stade Caroline Faye ànd ak sëñ Abdou Faty Niang a comité Bourd Populaire bi nga xam ne dafay liggéey bu rëy alal ju bëri la ñu yëkkati rek cotisé ko jaar ci section yëpp jox ko léegi ci tey nga xam ne fii ci mbuur ci jumaa maam Cheikh Seydil Hadji Malick Hadj Abdou Fati jërëjëf Cheikh Ahmad Tidiane kon mi ngi noonu yaa ayyuha allazina amanu istajibu lillahi wa li rasuli fii la ci stade Caroline Faye samedi le 23 septembre à partir de 16h incha allahu taala ku yeex nag gëm naa ni boo moytuwul ci écran géant yi ngay seetaane bourde populaire bi wala nga seetaan ko direct ci Aynou Mady TV السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فيها اليمن خليل يا عيا وانزلا بالتواون